RFM Matin. RFM Matin. émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 7h40 euh, ñu dalal sunu Jean-Pierre euh, Diamane Bakhoum salaamaaleykum. alaikum. Walaikum Babacar. Babakar. Nous lay euh, gërëm bu baax ci teewaay bi kilifa nga ci ANSD dit yaa le woon recensement bi ñu mujjee def di Sénégal nu toll di cinquième recensement général de la population et de l'habitat bëri na ay jàngat euh, yees ci mën a def ci ngeen siiwal euh, keroog talaatu foog bi ngeen di wax nan la recensement bi tëddee ak euh, na ci ne Dakar département Dakar nekkatul département bi ëpp mbooloo ci réew mi Mbàkke moo ko ëpp nit loola lu ko lu ko def lu ko waral. waaw jërëjëf Babacar balaa may tàmbali may may ma population sénégalaise bi ci dalal bi ñu dalal suñu ndaw yi bi ñuy RGPH jox leen tamit xibaar yoo xamante ne moo tax ñu am résultat bi nii bu weesoo loolu aussi damay remercier état du Sénégal bi nga xamante ne moo financé entièrement cinquième RGPH euh, moom tamit euh, am ci taxawaay bu am doole. Euh, par rapport ak li nga wax ci département Mbacké bi nekk premier département actuellement donc li ñu seetlu mooy population yi dañu dëkk fi fi ñuy naan Dakar Thiès Diourbel. 2013 bi fait le recensement bi département Dakar Momo jitu won mais entre temps Dakar dafa perte lu bari ci population du joggé département Dakar le département Rufisque donc lolu bokk na ci li tax ba Mbacké ñëw surclassé donc euh, département Dakar. le Rufisque ci li mu gën a yaatoo cité yu bees euh, cité yu voilà ay Bambi Bambilor ak xeet exactement hmm. lotissement yi ñu fa tijji ak euh, infrastructure yu ñu fa yóbbu autoroute bi ak yeneen yi nga xamantene moy mooy tax dëkkuwaay bi gëna a ñëw foofu bokk na li tax Dakar perte première place département le plus peuplé au Sénégal. est-ce que migration bobu ñu de Dakar ci Rufisque est-ce que lu ni aussi nemeeku nañ ko jëmale ko ci département bu Mbacké tax ba nit ñi gën fa bari légui wa danaka day département Mbacké euh, bo xolé ville de Touba dafa bëri lu muy polarisé même ñaari département yi bokk région de Djourbel, muy département Djourbel ak euh, Bambey ñu bëri dañuy toxu dem Touba loolu nemmeekoo nañ ko ci recensement bi passé bi tamit aussi gis nañ né djourbel ni muy màggee dafay xëc lu bëri surtout département Djourbel, bi nga xamante ne euh, peut-être mom moy gëna a perte en termes de population loolu daal seetlu nañ ko ci ci suñuy jàngat. Mhm. te Touba googu moom at mu jot daanaka ay quartiers yu bees euh, juddu fa euh, lu tax nit ñi di euh, jóge ci yeneen diwaan yi nekk région Diourbel dem di sanc tubaa lu ko waral. waa loolu day am na peut-être ay jàngat yoo xamante ne nit ñi nga xam dañuy gëstu ci wàllu. wala bu ngeen def recensement yooyu du ngeen ko laaj. non du ñu laaj laaju jeme noonu peut-être ñi nga xamante ne ñoom dañu gëstu développement territorial ñoom danañ xam lan moo tax xëy na peut-être Touba di di di gën a polariser peut-être accès accès à accès au bi mën na tax peut-être mën na gën a yomb Touba ak yeneen. am suuf Touba daa moo ah, gën a yomb peut mën na nekk. pour mën a tabax mm-hmm. exactement voilà.

donc xol njël yi xool dëkkuwaay bi nan la bindo def ko ci ay carte digitalisé ko jël coordonnées géographiques yi donc daanaka Sénégal yépp dem nañ fa géoréférencé ko manam nga jël position bi kër gi am ci biir Sénégal loolu moo nekk liggéey bu njëkk bu ñu def jël aussi kër gu nekk borom jël ba fa nekk manam kilifa bi nekk ci kër gi buñ ñu bu weesoo loolu beneen liggéey bu ñu def mooy dénombrement bi dénombrement bi benn weer la ci biir weer bi maanaam da ngay dugg ci kër yi nga xamante ne cartographier nañ ko ba pare ba dugal ko suñu base de données kër gu nekk nag nga dugg lim doomu aadama ñu fa yeewoo amaan na xëy na mën nga ñëw ci kër fekkoo fa kenn loolu mën na am mais suñu ndaw yi dañu leen wax naan boo demee ci kër bul dem bennoon rek bañ ki bañ a delluwaat ñoom dañuy dem def ay passage yu bëri euh, parce que dañ ko xaaj def ci ñett xaaj xaaj bu njëkk bi mooy dañuy yeesal li ñu defoon ci cartographie ba pare balaa ñuy dugg ci kër yi beneen xaaj bi dañuy dugg ci kër yi xootal laaj yi bu ñu paree aussi dañuy duggaat def la ñuy tuddee ratissage pour xool yi ñi nga xamoon ne gisoon nañ leen ci cartographie bi te xëy na peut-être gisaguñ leen ma man mën na nekk ñoo xam dañoo toxu wala am ñoo xam dañoo peut dañoo tukki bu ñu weesoo bu weesoo recensement bi dernièrement plutôt dañuy def li ñuy tuddee enquête post censitaire pour xool couverture bi loolu nag moo ñuy tax a xam ñi nga xamante ne ñoom bu ñuy def recensement dem leen xam dañ leen fàtte woon bu ñu paree ci loolu dañuy jël taux de couverture bi daal di ko kii daal di ko dugal suñu machine yi mën a ajuster nag ñi nga xam dañ leen omettre woon pour maanaam toute la population du Sénégal noonu lañ koy doxalee. Mhm. Euh, bu ñu xoolee ba tey ci mbooloo mi nga xam ni tey moo nekk département Mbacké ginnaaw moo jiitu dégg nañu ay euh, waa Mbacké ki Touba ki boromi xam-xam sax yu wax ni loolu dafay tekki nii dunduñu ko foofu lees war a setaat la est-ce que seen liggéey la ci euh, bu mbooloo yokkoo ci dëkk sàngam nguur gi war fa am taxawaay boo xam ne mooy méngoog na mbooloo ma tollu ci jumtukaay ci xëyum ndaw ñi. ci mpaju ak yooyu est-ce que loola seen enquête dina dina ko ci boole wala kilifa yi ngeen koy jébal ñu xool ko. waaw ñun day ANSD bu ñu liggéeyee ba pare dañuy jébal kilifa yi ne leen daal lii la gis données yi lii la wane maintenant ñi nga xam ne ñoom ñoo yore baat pour digal maanaam yóbbu fa école dispensaire wala leneen. xëy na peut dañuy sukkandiku ci li ñu gis pour mën a def yooyu ngay wax yooyu investissement ngay tudd. Mhm. ne ngeen dix-huit millions euh, quatre cent nangam lañu euh, ak lu quatre cent nangam mille euh, est-ce que euh, compté ngeen booy jël gaal gi am na ñu naan ay million la wala euh, loolu sóoraale wu leen ko booy jël gaal gi dem Espagne mbëkk. waaw boo xoolee jumtuwaay bi ñuy utiliser pour def recensement bi am na benn partie bu ñuy tuddee émigration émigration mooy maanaam ñi nga xam dañoo tukki te ci biir pàcc boobu noonu am na ñetti laaj yu ñu jël avion ak ñu jël gaal. am na ñetti laaj yu ñuy laaj. Hmm. maanaam laaj bu njëkk bi dañuy naan est-ce que ci biir njël bi am na koo xamante ne euh, tukki na ci juróomi at yi weesu bu weeso loolu aussi dañuy laaj est-ce que bu muy tukki euh, maanaam borom njël bi xamoon na ko boobu muy laaj bu njëkk bi deuxième laaj bi mooy est-ce que bu muy dem amoon na ay kayit ñetteel bi mooy bu muy dem lan la jël gaal la jël oto la jël bato la jël walla avion la jël laaj yooyu nag bu ñu ko jëlee euh, ba defar ko parce que rapport bi ñu génnee nii mooy rapport préliminaire bi dina am beneen rapport provisoire buy génn ci fan yi ñëw danañ xoolaat xootalaat euh, maanaam xibaar yi pour mën a génnee ñi nga xam ne bu ñuy dem peut-être clandestinement lañ dem walla dañoo amoon ay kayit yu wóor am visa mën a tukki mais li ñu lim daal ñooñu nga xamante ne dem nañ su fekkee ne ci période de dénombrement bi lañ dem euh, ah, bu weesoo période bi duñ leen jël mais bu dee ci période bi lañ nekk dinañ leen. ñaata tukkikat ngeen xayma ci biir enquête bi. waaw loolu nag du ma ci mën a àddu pour le moment parce que yéegaguñu ci joxe xibaar yooyu fu ñu toll mooy joxe ñaata li mu doomu aadama lañ euh, boo xoolee boo demee. ci góor xanaa da ngeen bañ ñu xam ñaata booy ñoo dugg ci gaal yi. non non kilifa yi leen ko tereem. non non kenn ANSD kenn mënu ko tereem wax parce que indépendance scientifique bi nekk ANSD amul benn kilifa bu ñu mën a wax loo naan. wax leen li wala def leen li ba ñu def ko parce que ñun ñi dañ nekk sous serment juge bi nu muy demee waa tribunal waa ANZ noonu la ñuy demee waa tribunal dañuy respect secret statistique donc amul kenn ko ñu mën a def looloo xam ne bokkul ci suñu liggéey loolu daal boo boo ngeen jàpp ko. ah euh, partie immigration mais est-ce que aussi euh, ci seen recensement jéem ngeen gëstu itam ci ñi nga xamante ne euh, ñoo ne fii ci biir réew mi te duñu ay sénégalais. waaw xam nga boo nee population du Sénégal est-ce que vous koo intégré dañ ci cee Voilà, wala. population Sénégal 18 millions. 32 473 c'est la population bi réside Sénégal y compris les étrangers. mais ñi am nationalité sénégalaise mën nañ leen après mais ñi réside Sénégal y compris les étrangers c'est 18 millions 32 473 Nous sommes tous ngi ci biir. képp koo xam Sénégal de fi ci nga bok même ñi nek ci mbedd mi té amuñu fuñu ñu ak ñi ne ci daara yépp ñu ngi ci biir. ñoo ñaata lañ wala xam mënagu leen. Euh, noo xam nañ ko ñu ne ci daara yi. non non ñi nga xamante ne ñoo di euh, des étrangers résident au Sénégal. non loolu duñ ko duñ ko mën a génne léegi. loolu loolu nañu taaxeer lu tuuti. Hmm. xam naa ngeen may ñu daal fi ak ay. kon kay liggéey bi des na yéen itam. non liggéey bi maanaam boo xoolee booy def recensement dafa am nooy joxe xibaar yi bu boo boo paree kii maanaam liggéey bi da ngay jébbal résultat préliminaire yi préliminaire mooy. da ngay joxe résultat globaux yi pour xool tendance yi fan la jëm. Hmm. bu weesoo résultat préliminaire da ngay dem provisoire provisoire boo génn ci ngay xootal nag ci la ñuy génnee maanaam étranger yi nekk fii nii ñaata lañ ak yeneen détails yu nekk ci en tout cas wàllu information. Hmm. waaw loolu ci kanam lañ ciy est-ce que liggéey bi ci terrain bi mat na wala yéen liggéeyu bureau toog di def ay projection ki xayma moo moo ëppoon doole ci li ngeen def. non liggéeyu terrain bi moo ëppoon moo ëppoon doole. parce que bo xolé ku def 11 euh, mois de cartographie nga nekk sur le terrain di dugg ci kër yi di jël ay xibaar paré lolu aussi def benn wèr bo xamantene ndaw yi dañu dugg ci wèr yi xam ci kër yi di jël ay xibaar donc terrain bi mo ëppoon doole. maintenant fuñu tollu fi nak ci phase traitement lañu ñu nekk maanaam dañuy jël données yi wax lo leen xol données yi lan la génnee exactement té données yi lu muy génnee rek moom la ñuy joxe. Mhm. légui euh, mën nañu xam ci walu diiné ñan ñoo ëpp. jullit ñi fu ñu toll catholique yi fu ñu toll ñi gëm leneen fu ñu toll xeet yi wala fi ñoo ëpp wala tukulóor yi ëpp euh, wala sa mbokk joolaay yi wala yéen séeréer yi ak George yéen a ëpp est-ce que yokku ngeen wala yokkul bu dee George rek yokkoogu leen moom. <laughs> Babacar xibaar ko génne xibaar boobu duñ ko génne. ndax lan.

mais amna lo xam dañ ko djébal du génn ci rapport bi loolu dafa bok ci charte bi bi ANSD taxawal ci plan de diffusion des informations. yéen wa ANSD yéen ko def wala yeneen kuréel yu def statistique ci aduna tam day am information yoo xam dañ koy téye wala yéen Sénégal yéenay bloqué information est-ce que xam nga né variable yooyu ngay tuddu amna ci dëkk yoo xam kenn du ko ki kenn du ko dugal ci questionnaire ni ndax lan Sénégal bokk na ci ñi nga xamantene ne ñoo koy dugal ba tey parce que amna ay chercheurs yu ko soxla te dafa nek des faits sociaux yoo xamantene dañ ko wara xam. ndax lan parce que taal na ay réew boo demee ay dëkk yoo xam ñu nekk ci euh, sous-région bëggu bëgguma leen tudd donc euh, am na jaxasoo bu mu indi donc ANG du nekk ki nga xamante ne dina jéebal xibaar boo xamante ne xëy na dina indi féewaloo entre nit ñi. toutes les façons daal bu chercheur soxlaa dana indi benn protocole signé ko ANG wax naka lay utiliser xibaar yooyu mais duñ ko jébal ci rapport loolu moom bu yóbboo ngeen téye ko.

xam nga à la naissance euh, cent cinq la ñuy am garçon contre mm. cent cent filles mm-hmm. maanaam góor yi ñoo ëpp bu ñu juddoo ni ñu juddoo indaale bakkan mm-hmm. góor yi ñoo ciy ëpp mais bu ñu ci njëkk kii ci taaw njëkk ya euh, maanaam góor yi ñoo gënoon di di di en tout cas ñoo gënoon di faatu mm-hmm. léegi nag dafa am benn euh, peut-être effet de kii bu am Euh, amélioration conditions dépenses matériel la <laughs> lu ñu seetlu daal mooy ko mëna expliquer luñ ci mëna a junjugum pour le moment parce que peut-être am na ay xóotal yoo xam dina génne yenen yeneen information yeneen facteur euh, amélioration euh, en tout cas mortalité masculine bi bokk na ci parce que bo xolé structure biñu am ni ci recensement bi ni jigéen ñi ëpp ci judd yi loolu la non góor yi ñooy ëpp ci judd yi ñooy ëpp mais euh, góor yi ñoo gënoon di faatu

mais bu leen fàtte ne aussi boo jëlee ñi nga xamante ne ci kër yi lañ nekk parce que population bi ñetti pàcc la ñi ne ci kër yi ñi ne ci maanaam daara yi caserne yi ak internat yi ak ñi ne ci mbedd bi boo jëlee ñi ñi ne ci kër yi jigéen ñi ëpp boo demee ñi ne ci daara yi góor ñoo ëpp te li basculer loo aussi situation bi mën na nekk aussi population ñi ne ci daara yi nga xam ne ñu ci bëri ay góor lañ boo ko yokkee nag ci population ñi nekk ci kër yi moom mooy tax rapport de masse bi dafay basculer en faveur des hommes loolu aussi mën na nekk jàngat bu ñu am mais. est-ce lu euh, bees la ñu gis góor ñi ëpp jigéen ñi Sénégal wala. waa lii day daanaka bi ñuy def recensement ba tey euh, ñu ngi koy ñu ngi koy doog am mais gisoon nañ ko muy ñëw parce que recensement bi passé commencé woon nañ gis ne tendance bi ñaari kii ñaari sexe yi dafa commencé woon di di di équilibré wu. te loolu sax moom lañ seetlu ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër Sénégal. Sénégal rek moo desoon ak ñaari Guinée yi boo xoolee ñi nekk Afrique Afrique de l'Ouest yëpp ñu ci bëri góor yi ñoo ëpp jigéen yi. ci seen mhm. recensement est-ce que da a jàpp ni ñiy faatu Sénégal dafa bëri ba ëpp loxo jéggi doye wala lu euh, euh, chiffre bu normal la. chiffre boobu génnagul Babacar. Mhm. waaw euh, mënuñoo xam tam nit ñi faatu gu bëri yan feebar mooy yóbbu nit ñi loolu gëstu ngeen koom. waa gëstu nañ feebar yi nga xamante ne maanaam du wàlle maladie chronique. recensement bo recensement bi ni bokk na ci coppite yi ci gën a am solo parce que laaj nañ kër yi ne kër yi ñu recensé yëpp laaj laajte nañ est-ce que am na koo xamante ne yor na feebar boo xam ne maanaam feebar chronique la du wàlle muy ay jabet ak yooyu yooyu yëpp yëpp laaj nañ ko bu solo loolu aussi cancer bi dafa mel ni moom daa yokk ah, wala gisu leen ko ci enquête bi loolu du ci wax hmm. ah mais finalement ah doy na waat xanaa ñun kon bu ñu bindee ngeen jox ñu résultat yi boobu non di ngeen gis résultat yi bu soobee yàlla Mhm. waaw yooyu yooyu dafa génnagul moo tax. Ah, waaw Pikine ak Kër Massar Kër Massar département bu bees euh, moom moo ëpp léegi Pikine mbooloo am déet. Euh, Kër Massar euh, Pikine moo jur Kër Massar. donc boo xoolee li tax sa bas. ndax yëmb yëmbal léegi dañ ko taf ci Kër Massar département Kër ñaari ñaari yëpp mi ngi ci Kër Massar. su ak nord. boo xoolee Kër Massar ak pikin dañoo neexoo moment bii nii. maanaam dañoo dañoo def kiif kiif

amna xeyna peut-être lu muy lu muy gàllankoor muy indi euh, des fois mais biñu gis ni Kër Massar quand même euh, nekul ki nekul lu bon parce que ANG participé na ci découpage Kër Massar bii nii daanaka loo bon en tout cas amna dal daal ñoo leen jébal données yi leen mën a permettre ñom ñu ñu en tout cas découper département Kër Massar. loolu daal yaakaar bu dekk yi di mag aussi baxna na ñuy am sen autonomie mën a am ay jumtuwaay parce que bo xolé kermassar dans li tafone ci Pikine taxna na de yu bëri ci jumtuwaay way ko té li lii ni mu département ni dina tax be équipement yi ñew fofu euh, population aussi mën am ay ay services sociaux de base pour mën nek ci dund ki dundin bu baax. coïncidence 2023 l'année prochaine c'est 2024, 2024 euh, élection présidentielle On a évoqué un recensement à des fins politiques même si l'on sait que euh, recensement général c'est tous les 10 ans est-ce que.

calendrier électoral euh, Yon bi ñu jël politique la mission de collecter l'information euh, analyser exploiter et diffuser nous utiliser ko ku soxla information boo xamante ne dafay jëm ci développement boo defee demande à daf la faire mais quant à ANSD di liggéeyal non politique ne ci nekkuñu ci tànk bopp waaw bokkuñu ci coïncidence politique ñun nekkuñu ci ci ci ci ci wàllu politique en tout cas. Mhm. gone de da mel ni ñoo ëppati ci li ngeen xayma ñi fété ndaw. waaw loolu am. Mhm. loolu tamit lu ko ban ban signification lañ ko mën a jox nu ngeen koy interpréter. waaw mooy population bu jeune la rek population jeune la mooy caractéristique population pays en en en voie de développement euh, fécondité bi wàccul wàccul peut-être bu gaaw motax ndaw yi dañu bari mhm. mais commencé nañ gis nak ne population bi commencé màggee touti parce que bo xolé âge médian bi recensement bi. passé 19 ans 18 ans la mhm. légui yegg na 19 ans. Mhm. té bo xolé ñi am 65 ans et plus c'est lim aussi mi ngi yok ça veut dire que nit ñi ni ngi gëna dund lu yagg ah. donc il faut aussi ça c'est une bonne nouvelle. donc il faut aussi ñu waajal lolu waaw ah. ah, il faut ñu waajal lolu parce que plus nit ñi di dund dañuy am ay besoins spécifiques yo xam il faut ñu tenir ci compte. ci politique yi ak xëy na peut-être service yi ñuy mettre en place pour hmm. les personnes âgées. célibataires yeeg mariés yi ku ñan ñoo ëpp. loolu génnagul Babacar. <laughs> tey li génnagul bari na de borom benn jabar yeeg ñaari jabar ñan ñoo ëpp. <laughs> génnagul tamit mu ngi noonu jërëjëf euh, sunu gan tey kon euh, mbokk yi dafa gis boppam ci li ñuy wax ni ñu ngi koy gërëm moom it ci ci teewaay bi euh, kon sunu gan mbokk yi nekkoon tey ci suba Jean Pierre Diamane Bakhoum yow yaa jiite recensement bi mujj am ci Sénégal ci 2023 gi ñu doon xayma nit ñeek dëkkuwaay loolu jotuñ cee dugg yeneen fànn ci RFM nañ ci ànd ak yéen waa ANSD jërëjëf jërëjëf Georges jërëjëf Fati.